yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi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 di jiital ci ziar yi Serigne Mountakha Bachir Mbacke naka noonu it di ci toftale Serigne Cheikh Jëmb Fall di leen ñaanal sunu borom dolli leen fay yàggal lool te mu wér lool barkeb Serigne bi. kon mu mel ni dellusiwaat nañ ci sunu émission naafila bis bi ak béytu bis bi ci amaat ak mbégte gu yaatu di leen dalal ci weer wu tedd bi weer wu sell wi nga xamante ni fekke waat nañ ko di ñaan sunu borom lépp lu ci diggee yàlla bu mu ñu umb ci mbaaxu sëriñ bi. kon mu mel ni ci guddi tey jii di ñetteelu guddi gi ci weeru koor Serigne bu Mbacké radiyallahu anhu indi na ci qurratul ayni ni képp ka nga xamante ni daal julli na ci juróom-benn rakkan rakkan bu ci nekk ginnaaw ba mu jàngee fatiha mu jàng ci inna anzalnaahu ñeenti yoon waaye tamit jàng ci alkaafiruun ñeenti yoon nga xamante ni ñetti sëlmal lay am dangay ngay julli ñaar sëlmal julliwaat ñaar sëlmal julliwaat ñaar sëlmal mu mat kon mu ni daal képp ka nga xamante ni ni daal def na naafila googu dina mel ni ku goreel junni jàmm ak ku jox ndogu junni ñu woor wodd junni ñu rafle leel junni ñu xiif des na ko ca bindal itam tuyaaba ju toll ni limub njanaaw yi àdduna yëpp waaye du yam foofu de ba tey des na kon mu ni des na des na ko ca defal li ñuy defal jaami yàlla yi gën a baax ak ñi gën a ak ñi dee ci xare lislaam te deesu ko fitnaal ci bàmmeel te dees ko fitnaal ci bàmmeelam nga xam ni fitna yi bàmmeel rek lu jara ñaan suñu borom muccal la ci waaye kon deesu ko ci mbugal itam kon nga xamante ni nii njariñ yi mu njariñ yu yaatoo yaato nga xamante ni nii e, tawfeex dëgg la kon jaadu na kenn ku nekk ci ñun góor góorgóorlu ci di ci farlu ndax dafa nekk weer wa nga xamante ni nii bu jàllee du ñëwaat te wóoru la ba xam bu ñëwaatee dina di fekk am du la fi fekk kon ndax waxtu moom lépp loo ci raw rek raw na la leneen day ñëw kon ñaan sunu boom defal ñu ci ak dëgg-dëgg tawfeex bañ mën koo matale te mu nangul ñu sunu koor kon ñu dikk ci béytu bis bi ñu fas yéene koo jëlee ci masalikul jinaan boo fa demee sëriñ bi mi ngi la naan thumma siyaamu fantami lam yanxasir fi adamil akli faqad la tahtadir mu ne la daal nanga nga ni yow mi di woor nanga nga xam ni daal koor maam wul ci bàyyi lekk rek ak bàyyi naan képp déedéet na nga xam ni takkuwul ci ñaar yooyu saa soo jàppee ni koor daal mooy bàyyi lekk bàyyi nga naan rek ak bàyyi naan rek nee na la woru nga kon koor du yamul ci ñaar yooyu rek waaye bàyyi lekk bàyyi naan comme niñ ko ñu ko jàngalee ci farata yeeg sunna yi nga xam ne ak bàyyi lépp la nga xamante ni nii luy gàllankoor sa koor la moo xam wax ju ñaaw moo xam jëf ju ñaaw moo xam jël yëfu jàmm ak yi ci topp yëpp kon koor daal li ñu naan nit ki léppam dafa war a woor làmmiñam bëtam ak yëpp rek kon koor yamul ci bàyyi lekk ak bàyyi naan waaye lépp la nga xamante ni nii lu luy nduru ak ñaawteef la luy nduru lu xaraam la jaadu na nit ki bàyyi ko ngir matale kooram googu ñaan sunu borom defal ñu ci ak dégg ak topp kon mu mel ni loolu neewoon sunu euh, béyitu bis bi di leen joxaat dig daje ba ëllëg ak jàmm incha allahu rabbi ci beneen naafila ak ci geneen béyit di ñaan yàlla sunu borom nangul ñu di leen ñaanal ndogoog jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.